ci Pikine mën na fii mooy écurie Falaye Baldé fii mooy base bi fekk fa nag benn champion benn ndaanaan li muy wax à chaque fois rek nekk xale teewul nekk ndaanaan nekk xale teewul am jom waaye nekk xale aussi teewul nekk champion mu am nag bés bu mag bu muy waajal diggante ma Bébé Saloum tey nag mu préféré def point de presse tey nag xam naa ne point de presse dafa xew moom Jacob Baldé ñu war ko nuyu rek

tey lan moo sabab tey nga ne tey da ngay def point de presse pas que open presse tey ni ko Sénégal yi bëggee say supporters ni ñu ko doon xaarane tey nga ñëw saafante ak ñoom wane li nga liggéey. man moom yaakaar naa ne open presse moom mosuma ko def. Mhm. waaw lii sax dañ ma ko forcé. Mhm. waaw c'était par force moo tax ñu def ko. Mhm. parce que dañoo signé ko. promoteur bi contrat te bëggu ñoo tooñ. Mhm. waaw mu ngi noonu. mais loolu mais lan moo sabab tey Jacob Baldé bëggul di def point euh, open press comme ni ko ñëpp di defee Jacob ñi ñi gis nañ ne dafa xaw a rétrécir Jacob dafa dafa dafa dafa restreint lan moo waral loolu te ku ku ne xam ne ne mbër aussi day laaj ouverture mbay day laaj tey xam nga mais lan la lu xew. non dara dara <laughs> loolu du dara du dara. Mhm. peut-être dañoo liwagul rek dañoo yeggagul fu ñuy open press dañuy bañ a sonal nit ñi. Mhm. premièrement. ndax gis nañ open press yi. dañuy sonal nit ñi ba pare sonal seen bopp. Mhm. loolu rek lañ ciy daw. Mhm. waaw waaye du dara. combat bi noo ko waajalee. Ah, waaj nañ ko ànd na suñuy mbokk bu baax baax a baax. Mhm. waaw di si ñaanal ñu ci am combat comme ñu nekk Pikine. ñu siy bëre. ku si mel ni Malo Seras Sokh. Zambala ordinateur ñëpp am ndam. waaw. xam nga adversaire bi nga war a bëri. Bébé Saloum bu baax a baax. loo xam ci moom xam nañ ko bu baax a baax a baax a moom mooy loolu Jacob interview sax da ngay wax ba sonn. mais xam nga mbër bi nga war a bëreel. Bébé bu baax a baax a baax. Ah. macha allah. mais gars war na la xabtal nga war a nga xaw a Jacob Jacob dafa français ba mu ëpp quoi mbër day ah mbër day ah. loolu. non dañ xajam ci biir géew bi rek. ci biir géew bi rek daal waaw waaw. mais Bébé Saloum loo xam ci moom ak loolu mën a wax tey ci ay qualité am la aussi. la moom loolu kenn du ko bañal. Hmm. waaw ku def 26 combats. su ma juumul mu ngi noonu. xaaju combat am sax bëreeguñ ko. waaw ñoom moom ñu ngi koy nuyu au passage baax a baax a baax a baax. Mhm. waaw préféré may la chance. jant garab bu baax la daal luñ mën a wax ci moom garab bu baax la. Mhm. garab bu bien la. Mhm. waaw mais ci biir géew bi moom amul baax amul bien. parce que nag li ma wax à chaque fois ñu bëri grand public ñu bëri ñoo ko desewul xam mais ñi la ñu ñi daje ak yow si àll bi ci mbapat xam nañ ne vraiment mburu jom nga tey contre Albouri aussi la la ñu a bàyyi xel mais a xaarandi si Jacob Baldé jours yi non seulement sam mbër bu mag ngay bëreel waaye non seulement bés bu mag ngay bëreel ay championnat fa teew tey nga war fa wane sa bopp tey lan lañ mën a xaarandi si yow bés ba comme lu xale war a def rek lépp lu ñu war a def rek dañ koy def lépp lu ñu war a rek dañ koy def yàlla bi moom ndam nag ñu ngi koy ñaan ndam bu baax a baax baax a baax. mën na xaar di xeex am. man ma baree saa xeex. <laughs> loolu bu dul lekk. raak dina am. dina xeex boobu dina xeex bu baax a baax a baax. waaw Adja Fatma Adja ñu ngi lay fay bu baax. Euh, non si man moom amul différence. Ah. waaw. est-ce que ñii gënuñu koo saf. Ah. ñii ko gën a féete xale. ñoo gën a féete xam. ci cadre bëre dégg nañ ko moom wax. ci cadre bëre. waaw non kenn dàq ko bëre mën a dàq bëre. te li tax xale bi ko yeb le jour ji. ci ci Jacob la koy commencé. est-ce que fii moom bu dëgër dëgër bi la. bii moom bu dëgër dëgër bi la nekkuma xale yi kenn muy noonu. grand contre hmm, waaw grand contre xew gis nañ fi nag ay grand yu corrigé ay booy bés ba lan lan est-ce que tey yaa ngi xaarandi tey comme li ma wax rek waaye confirmé ne comme li yàlla booy bokk ci booy boo xamante ni grand yi dañ koy cotiser corriger du moins mhm. ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu ndam arbitre sifflé Jacob day taxaw déglu Bébé Saloum ne mooy mag wala arbitre day sifflé Jacob dagg jénge yi wan ko ne may xale may wut si maa la mën maa la ëpp doole waaw de nga xaar de arbitre su sifflé ah. comme ni ñuy def rek dañ taxaw déglu la tuuti. soo ñëwul rek ñu ñëw incha allah. ah waaw ngay nga bëri woon ak Alboury. nga bëri fa bëri bu mag sa diggante ak Alboury. waa Pikine yëpp di xaar sa confirmation. sa diggante ak Bébé Saloum. te jour boobu waa Pikine drapeau bi dañu la koy jox. jox ko soq jox ko maalo Seras. jox ko ordinateur est-ce que xam nga bés bi lu muy war a lu mu war a représenté. waaw waaw bés bu mag la de. Ah. parce que soo tourné gis Pape Sarr sama wet. waaw Thiam Mortala AS Pikine. Mhm. waaw ñoom Malo ñoom Ama. Mhm. suñu écrit booy Balde ñëpp teew suñu ginnaaw ñu xam waaw am nañ sas bu baax a baax a baax a baax mais lépp dañ ciy dem ak seen xel rek. Mhm. Ama Balde bëri woon ak bébé Saloum jamono yooyu ngay door bu dugal ko fourrière foo ko la am jëlaat ko sànq mu ne ma danga yow yaa koy dugalaat fourrière. loolu maa ngi ko maa ngi koy wax nee moom dafa bëgg a ñëw redoubler d'effort mhm. ma ne ko moytul nag nga génnaale làmb ji mu dañuy entraîner rek pas moom sax mais pour yeneen combat dañuy préparer rek gis nañu ni yaa ngi mu wax mm-hmm. daan. non yooyu sax. Mm-hmm. fii moom ku dem ba ñeme la rek am na fu mu ko teg pour daan la. Mm-hmm. waaw moom am na fu mu teg pour daan ma man tamit am naa fu ma teg pour daan ko. ay ñaan yàlla jour boobu yàlla ànd ak ñun rek. foo teg pour daan sa gëm la wala. sama entraînement ba pare waaw peut-être compétition bi tamit maa ko si gën a nekk foofu. Mhm. xeebel du am ci combat bi. ah xeebel amu nga xeeb ko nii. sujet mu ko su ma ko xeeboon du ma entraîné lu ma entraîné nii. mbër bu mag la de. xam naa bu baax incha man si wàllu mobilisation lay wax. parce que ku wax bés boobu. Mhm. wax bés boobu bii dafa 6000 la. Mhm. te ñu bare bëgg nañu dox dem seetaani la jënd bii seetaani la. wàllu mobilisation côté boobu fan nga si tool est que am nga ñu la taxawu si wàllu euh, euh, jënd ticket yi blogu ticket yi waaw moom gisaguñ benn taxaw di woo premier magistrat de waaw muy Timbo monsieur le maire ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax mu jàpp si jóge foofu woo président AS Pikine Modou Gueye ñu ngi koy woo Tafa Seck tamit wàllu mobilisation AS Pikine Pape tamit ñu ngi teg lépp ci loxoom waaw comme moom mooy Pikine mm-hmm. ñu ngi noonu ak mortala duñu gaaxa ñu ci bëgg a jàpp ñëpp comme lu may wax rek ibil nañ ñëpp bunt yi waaw mu ngi noonu ñu ñëw jàpp si parce que suñu amee ndam Pikine am ndam ñu amee safaan tamit non pas ay wéet man yooyu moom gëw ma ko ay combat <laughs> dama cee wéet ak yooyu doonu dund ma yooyu man moom bañ na ko ba dama dèjà dama réservé wu première des choses. Mhm. kon du ma toog fenn naan damaa wéet ak yooyu noonu. mais soxla nga ndimbal parce fii boobu waaw muy muy muy jeune jeune bu mel ni man rek. dangay soxla ku la jàppale. wax dëgg fa neex yàlla ku lay pousse. Mhm. ku lay conseillé ku lay wax defel nii doxel nii. Mhm. peut-être amuñu ñoo xamante ne dañuy dimbali ci wàllu moyen. mais am na ñoo xamante ne dañuy conseillé dañuy wax lu baax baax baax a baax a baax. à commençant grand Momo grand Momo Diop Thiès sa dëkk. borom Bergerie Youssou Seck. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax baax day jàpp si combat bi si zaahir ci baatin waaw di jël ay moyam di ma defal lu bëree bëri ñu ngi koy gërëm bu baax a baax grand Momo Seck waaw grand Momo Diop ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. waaw ni nga ko waxee rek tey côté Pikine bi tey Jacob expliqué ko tey aussi waxuñu itam ngay dem di fukki kër nit ñi mais tey accessibilité ñi ñu am si accès ak aussi Pikine bu xewlee ñu gis Jacob yu mel noonu certes xam nañ ne tu es quelqu'un de réservé mais est-ce que tey jotul aussi mu nekk un partenariat gañaa gañaa yow ak Pikine yëpp. Pikine nay sama lépp suñ ma xamee ci àdduna Pikine a su ma demee ba mel nii ma mel Pikine a tax mais peut-être dama un peu différent ak sama yeneen morom yi rek waaw peut-être ñoom mën nañoo dugg si nit ñi mën nañoo dem ci ay cant yooyu noonu mais ñun temps bi yëpp ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci compétition yi loolu dong mais amuñu benn différence mhm. Mhm. compétition bi lan la def ci yow lu bëree bëri waaw mbapat lutte simple bi baax a baax maa ngi ciy sant séeréer yi bu baax baax a baax a baax ndax gis naa njëriñ bi daan ñu ma doon daan daan yu ma daan lépp gis naa njëriñ bi parce que damay dem ci àll bi mel ni falaa dëkk dañ may teeru teral ma jox ma su ma amee tamit waaw ñu taxaw ci su ma amee ñu dooleel ma su ma amul ñu dooleel ma léegi dafa kon gars intégré nañ la waaw bu baax a baax a baax ah, soo xef soo dégloo sax da nga yaakaar ne Jacob séeréer la waaw di nuyu sama côté papa yi tamit mm-hmm. waa Casamance waa Guinée waa Bignona waa Agnac waa Ougnioog ñëpp. Jacob gannaaw bi mu la nuyoo euh, sa combat yaa Bébé Saloum ñëpp xam nañ ne combat bu lu mën a yóbbu sooy la ci làmb te ñu jot a bëre moom say say classe wala ñi nga xam ne ñu la jiw ci làmb bi ñu ko daanee am na fu ñu yóbbu combat bi est-ce xam nga lan la mën a représenté ci kaw boo amee ndam. waaw lu bari maa ngi ko koy wax maa ngi naan ko ginnaawam bi ginnaaw bu am barke la yàlla naa ko daan rek. ndax ma bokk ci champion yi parce que ñu ko daan ñëpp rek ci ay champion la. mais dafa bëgg ay ndaanaan nag. lu leer. coow Bébé lu coow li bàyyi bàyyi bàyyi Bébé Saloum dafa a bëri. to maa ko bëri foofu loolu moom dama ko fay wax maa ko bëri dix mille fois samay papa mbër yaay mbër. maam bàjjan mbër nijaay mbër. côté bu nekk dama am ay mbër ba pare ay séeréer ëmb ma téye ma bu dëgër dëgër kon su taxawee naan moo ma dàq bëri <laughs> day. mais mais combat bi dafay dafay dafay dafay nekk combat bu rëy ci moom. ndax bi mu dalee bëri bi mu daanoo digganteem ak Ama bu ñu seetloo fa la combat am jaaree yàqu. boobaak bu duggaatee fii da koy jaral lu bari bari pour ko jaral benn rek jaral na ma ko fukk parce que millions yi nekk ci kanam may seet nii. ak punkal yi ma gis ci karam nii. Hmm. waaw jaral lu bëree <laughs> bëri. lu gars di wax rek. Mm-hmm. bikitu mbagg boo xar si xolam magasin nga fay fekk. Mm-hmm. te bëgg nañ ay magasin yu magasin waaw. bés boobu nekk trophée empereur. Mm-hmm. ki ko gagné day am 1 million 500 pendant 6 mois. ceeb diwlin suukar ravitaillement. di yaa ngi rêvé un jour bëre trophée empereur. trophée yu ñu teg yu ñu teg yëpp pas empereur sax meilleur lutteur di monde ak lépp maa ngi koy xalaat. ba ci MMA bi sax maa ngi ciy bëgg a yëngu yàgg naa xaa wax. moom bàyyi ma benn sport parce que sport dong dama bàyyi samay étude bàyyi lépp mhm. ndax sport sport dong laay def. ki gagné trophée empereur am ah, loolu lu ñu rafetul la ndax roi des arènes bi rek dañ ko war di fay. Mhm. ba keneen di ko jël. ñuy fay kooku waxatuma ku ñëw nag teg couronne empereur di fay. Mhm. waaw. na woote après gars yi kilifa yi sant waaw woote na léegi moom ba ko mu woote di ko. di wo wa Pikine rek di wo wat wa Pikine bu baakha baakha baax di wo wa Maris. maniko ñaañu mën ngeen wax ci mën na ko di wo wat wa Pikine rek. di wo wa Maris tamit di wo dëkk àll bi yëpp. di ko dalé fatik Ndios Mon war Sum tiaré Mbam jifer Jifeer Ñoojoor jofior Fimla Simal ñep ñep ñu ngi leen woo séeréer séeréer gi ñu ngi leen wo bu baax a baax a baax jóge foofu nag dem Casamance waaw di wo wa sinja wa Uñuk wa Añak wa Silinki wa Jululu tamit ñu ngi leen di wo ñu jàpp si bu baax a baax baax a baax baax waaw ñëwaat tamit Pikine di wo wa wa cité police bi ba dekk nga xam ne sama maam fii la dekk waaw di wo wa Gazelle wa Teranga naataange ginnaaw raay tamit waa Benja boo ko jëf jamono jamono waaw jamono tamit sama jabar fa la dëkk sama jabar maa ngi koy bu baax a baax baax di ko ñaanal jàmm fu mu ne di ñaanal famille jàmm tamit waa cosaan tamit bu ma leen fàtte Cité Sotiba Gazelle waa yeewu tamit waa bokk jëf zeng gelewaar teranga ñëpp pikin gi yëpp waa daaru xudóos tamit ñu ngi leen woo bu baax baax a baax koju badara waaw booy balde ñu ngi woose waa koj mu ngi noonu di woo waa 50 tamit. nekk rajo Afia FM en même temps nekk télé Pikine euh, gis nañu CNG jël matuwaay ci làmb ji léegi 19 euh, euh, bàyyi na xel loolu ba nga xamante ni CNG di ko mën a dagg. waaw loolu moom dañ cee kontaan bu baax temps bi moom kontaan nañ ci. parce que ñun moom amuñu problème ay gàllaaj ak yooyu noonu heure bi heure bu mu mënta doon dañuy dugg mhm. waaw. simple bee gëna a métti foofu. waaw moom da ngay jël butéel yi sagoo ko vite fait rek dem. mu ngi noonu. Ama Boy Niang Eumeu ñu ngi ciy woo ñoom ñëpp ci benn Eumeu Sène Boy Niang ñu ñëw teew xam ne ay doomu Pikine rek ni ñoom ñooy bëre. waaw comité supporter AS Pikine tamit ñu ngi leen di woo Tafa Seck. Mhm. ñu ngi koy woo bu baax a baax. waaw ñu ñëw teew di ko ñaanal mu koy wax waaw. di ko ñaanal jàmm rek. fu mu ne fii ci biir ba wax ak dañ koy ñaanal jàmm. loolu moom xalaatu ko. mel <laughs> na bu dëgër dëgër bi. waaw bu dëgër dëgër bi ba nga nii. Hmm? wax daa ko dinaa ko ba xam dina taxaw xeex. loolu moom su ko defee def na lu ma gënal waaw. su nekkee day taxaw xeex moom def na lu ma gën a. man moom néew ma fi di diriger dara. Hmm. damay ñëw rek taxaw su ma gisul lu lu ma xam xam ne kii dafa fi nar a yàggal. Hmm. ma ñëw jàpp ko daan ko incha allah. acca kaay kaay gaaw lii daal kilifa gi ñëwal. ñëwal waaw xam naa bisimilah. ak sëñ ñëwal ñëwal. baax na fii jege si Mor jege si waaw après nga ñëw. waaw aca Diaz ñu ngi bi mm. mm-hmm. di nuyu mm-hmm. di tamit euh, suma frère yi nekk ci salle bi mm-hmm. ak fi di nuyu suma frère mortal, di la nuyu di nuyu site internet yëpp di nuyu waa Pikine yëpp bi nak jazz, yaakaar naa ñu gën xam enjeu yi Pikine en miniature tey ñoo war a bëri jour si tey mm-hmm. juróom mi mbiru Pikine war fa daje tey mm-hmm. Pikine tey war nañ ñëpp war a génn tey war a feesal stade bi certes bi xaw na seer tey Diaz ban taxawaay lañ si war a am ñoom ak moo Talla rawatina tey doomu Pikine yi nga xamante ni tey seen i doom ñooy bëri waaw keroog rek euh, open press u Zambala bi rek am na lu ma fa wone waaw parce que ñaari Njaga Njaay laa fa luwee mm-hmm. yëpp ay asiko dem ci open press u Zambala bi tey yëpp mbaaw yëpp kontaan ci xam na ne mbaaw yëpp ñu ngi tamit si ginnaaw Jacob di ko wax waa Pikine mhm. ku mel ni Khadim Diagne maire Yacine Doucouré mhm. tey ku ma indi mu ñu jàppale ko dama bëgg ñu jàppaleel ma suma rakk ji Jacob Malaw Seyras mhm. bu nekkee Zambala loolu féetee na boor lijjante nañ ko ba mu féetee boor côté Zambala di ko wax tamit euh, ñu jàppale waale ma ordinateur di wax tamit su doomu pikin yi nga xamante ne tey ñu ngi si diaspora bi mhm. ku mel ni Diaz bu AS Pikine pas Idi mhm. sama doomu ndey ñëpp xam nañu nu mu mel ak Ama Balde mhm. dañoo bëgg combat bi billet yi dafa xaw a cher waxuñu ñu jël xaalis jox ko Jacob mais dama bëgg ñu jël ay jëndal leen ko ay bolok supporters yi dem maa ngi koy wax képp bépp doomu pikin bu may seetaan nekk ni doomu pikin nga ne drapo Pikine nga maa ngi lay ñaan nga jàppaleel ma Jacob bi lépp ñu ngi koy teg ci loxo suñu frère Mortala waaw Mortala bi man si ginnaawam laa nekk waaw man ni nga koy gis nii si ginnaawam laa nekk waaw parce que mu ngi def ay mu ngi def lu am solo biir pikin waaw day suñu gox bi fi mu toll nii dañoo war a wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que lépp changé na ñëpp ñu ngi si jàmm te lii lekk la ñu bëggoon waaw te xam naa ni six points xaw ma xaw ma quatorze points dinañ ko am maalaw seeraas dina daan si kàttanu yàlla Jacob dina daan ñun xam nañu Bébé Saloum Bébé Saloum ah. waaw waaw man xam naa ko bu baax parce que non Bébé Saloum su néegu yaay la doon fanaan sama kër yaay caaro yi su may suñu fi foofu lay yeewoo nii man fa laay yeewoo sama yaay mu ngi fa sama yaay mu ngi caarooy mu ngi fa sama doom mu ngi fa Aliou Seras mu ngi fa ma leen ma ko ma koy wax rek am na lu ma dégg nag sama nopp na kii sama rakk la hmm. yaa ngi may de gis ka bu doon bëri mbër boo xamante ne ñoo bokk ndey baay dëkk Pikine dëkk caaroy te dëkkoo Pikine hmm. kii laay faral damaa bëgg mu dégg ko moo tax ma jël tiset bu mag defar ko seex sama doom foofu tisetu Jacob bu seer laa ko defaral. tiset boobu bébé Saloum nangu. non nan la koy nangoo. titre foncé la fa sama yaay dam koy bugg wax ko mu dégg ko. damaa bëgg mu dégg ko quoi mu ñu jël seex sama doom ñu tegee ko nelee ne xam ne ne kii baayam la dégg nga fii la sama doom yaroo loolu laay moo tax ma profité gaaw ñëw hmm. dégg nga ni ma ko defaloon contre ama solol sama doom tisatu ama noonu laa ko defaatee tisat bu seer laa jëndal seex Jacob si ginnaaw Jacob si kanam mu koy sol di ko doxantuwaale ci biir koñ bi boobu te dara du ci xew ah, kii papam la am na droit foral ko hmm. jaru ñu koy daq ay entraînement ak kenn xamul hmm. dégg nga foofu la dëkk foofu la juddoo foofu la màggee maamam fa la dëkk fa la am kër ni ma amee ni ma amee fii kër sama yaay foofu la amee kër lii làmb la dafay jeex Aliou Seras ñoo bokk ndey ak baay combat bi moo tax mu quitté nekk entraîneur foofu la woon écrit jimboori combat Jacob bii moo tax mu quitté fa ñu écarté ko ñu écarté ko dàq ko foofu la dëkk combat bii moo tax combat Jacob bi coow bu mag la fa am mhm. sa kii rakam la rakam la Aliou Seras day toog presque at du gis Jacob bii mu ngi nii hmm. du ma bàyyi ma fen billaahi wallaahi watalaay hmm. moo tax combat bi lu ma ci mën dinaa ko si def pour kii am ndam billaahi wal kitaab combat bi règlement de compte la lu ma ci lu ma ci mën dinaa ko def lu leer laa lay wax Aliou Seras su ma rakk la lan lañ a xaaral di def ci combat bi lépp loo doon gis ci ma doon taxawaayal Pikine tey ah. dinaa ko def ci combat bi surtout bu maalaw bi surtout maalo parce que Malaw tey Pikine da koo war a faj. ku nekk taxaw la ku xool ni muy taxawoo Ama rek kon Pikine waa képp koo ne da bëgg a Ama rek war ngaa jàppale Malaw Seras. dëgg la ngir jëmee Ama gunge ko pour mu am ndam. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam parce que nit ku baax la. waaw di woo waa Pikine yëpp nañ ñëw tekki loxo. jàppale ko ci billet ku mel ni Timbo ah Thierno Ndom du Gueye sama xarit xam nga maa ngi koy woo. Isaaka Diop waa Pikine yëpp Cheikh Lobaat Fall maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ko bu baax xam nga Pape Abdou Cissé Philippe Kenny képp ku si sama nit maa ngi lay ñaan gaaw nga ñëw contacter Jacob nga jàppale ko ci ay billets jàppale ko bu baax a baax a baax yàlla may ko ndam. jërëjëf waaw ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant journaliste yi di leen masaw coon di nuy tamit ndaw ñi nga xamante ni taxaw nañ lii di wax ne Jacob comme ni ñu koy waxee combat déclenché la moom xam na ko xam na li nga xamante ni enjeu wu combat bi la Bébé Saloum nekk na mbër boo xamante ni wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee ginnaawam am na barke. yàlla na ko Jacob daan ba nga xamante ni fi mu bëgg a am accès dina fa parce que avenir u Pikine gars yi comme ni ñu koy waxee relève bi ñun suñu xel dal na quoi. waaw relève bi suñu xel dal na ci parce que tey boo gisee benn Jacob gis benn Pokola gis benn Prince gis benn. benn benn benn soq de benn benn benn benn booy balde tas yaakaar xam nga boo limee sax da ngay juum da ngay am da ngay da nga Batista de xam nga da ngay da ngay da ngay da ngay am njaga jóob xam nga da ngay am xel mu dal ordinateur léegi li si des mooy ñoom ñu liggéey rek xam ne liggéey bi nag mën nga ci wéet ci entrement te entrement foofu nga wet ci pour nga mën a liggéey la sérieux léegi nag comme bisi bu desee nii lu dul maanaam ñun ñu war a woote suñu mm. grand Pape Sarr dafa baax rek moom bu waxee sax amaana mënuñu wax mm. parce que wax dëgg yàlla gis nga sukk du teesooy um dem mm-hmm. li mu mën ñun mënuñu ko Pape Sarr fépp lay dem mm-hmm. Pape Sarr day fëgg bunt yëpp pour jàppale jeunesse su Pikine bi mm-hmm. gis ga gars comme ni ñu koy waxee autorité yi muy le premier magistrat de la ville Abdoulaye Timbo budget sportif bi nga xamante dañ koy voté ci mairie bi nañ ci jàppale ndaw ñi tey jii ñoom Eumeu Sène ñoom Ama ñoom Boy Niang tey jii nii àgg na au sommet mais ñii àggaguñu au sommet. Mm. ñoom ñëpp dañu leen war a kii di nuyu aussi ki nga xamante ni wax dëgg yàlla muy baaboo gis nañ taxawaayam aussi. gis gis nañ taxawaayam aussi. mais comme ni ñu koy waxee sax di woo Mourou Gueye président AS Pikine muy maire Thiaroye ci dëkkaw di woo Isaka Diop di woo Cheikh Diop xam nga di woo tey jii nii comme ni ñu koy waxee waa diaspora bi bi ñu ngi leen di woo muy ñoom Diaz idi idi idi idi comme ni ko Pape Sarr waxee mm. mu ne koo xamante ne AS Pikine la commencé di jàppale sax avant muy jàppale mm. mbër mm. di woo comité supporter AS Pikine nag lu tax ma ne mën naa woo comité supporter AS Pikine dama nekkoon président u supporter ma xam li ci nekk yàlla dogal sama rakk ñëw nekk muy Tafa Seck di wax ne supporteru Pikine yi ñëw leen ngeen jàppale mbëru Pikine yi laay wax mbëru Pikine yi mooy maanaam tey jii nii bis ba dañ fa am ay mbër yi fay bëri muy maalaw di di di ordinateur di Zambala di di Soku di Zakob kon tey jii ni ñun kenn waruñoo ëpp ci terrain bi couleur vert rouge bi dafa war a saf sàpp ci ci ci stade bi parce que suñu gox la dañuy jéegi ñun gars yi comme ni ñuy fay transport ñun ñu transport ñun dañuy dox dagg billet dugg léegi comme li ñu soxlaa autorité yi mooy ñu jàppale ndaw ñi hmm. xam nga ñun ñi duñ naan duñ laaj billet mais dañu am ay xale yoo xamante ne génération 2000 bi ba jëm ci kaw dañuy soxla ñu la ñuy jëndal ay billets te comme ni ñu koy waxee boo gisee tey jii nii dañ leen war a jëndal ay billets waruñu ñëw ba ci buntu stade bi dafa toog hmm. parce que tey jii nii autorités ñu naan loisir hmm. nga jënd ay billets jox ko booy ñu ñëw ne dugg stade mën a toog benn place leneen li ñuy wax mooy tey jii nii kii di booy ñaa kii di Ama kii di Eumeu Sène ñoom làmb ji ku ci nekk ci sa poosu bopp war nga cee jënd di 10 blogu ticket ñëw may ko mbëri ciy bëri est-ce que nga ñoom ñooy li ñu naan bay ci say weewu tànk mm-hmm. ñoom làmb yi nii dañ ci war a jënd ay bloc mayee ko bu ñu mënta jënd ay billets maye ci seen poos ñoom ñu dem ci seeni nit see weñaar seeni loxo ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoo ciy bëre te ñu xam ne pi Pikine nag comme ni ñu koy waxee mooy gox bi nga xamante ne tey jii nii dañoo yo dañu pour gunge mbër dafa yomb ci ñoom mooy maanaam dinañ sangu ba set dinañ ñëw sa buntu kër 10 ba heure làmb ñuy dagg seen billet dugg supporter la yow mii mbër mi nag yow mii mbër mi nag nga def fulla ak fayda yàlla nag moo am ndam mais boo defee fulla ak fayda yàlla dalay may ndam parce que Pikine bu ñu àndee nekk benn lu ñu uti day yomb loolu nañ ci conscient grand pape comme ni ñu koy waxee saa su ne rek waaw mouvement doomu Pikine bi nekk yi nga xamante ni Idi Thiam mu ngi ci moom tamit ñu ngi leen ciy woo parce que dafa nekk loo xamante ne dañuy jàpp ci combat bu baax a a a baax a baax a baax man ñu may gën a woowaat mooy comme ni ko Pape Sarr waxee muy ñi nga xamante ne ñooy acteur yi nga xam ne ñi ngi biir Pikine te mën a jàpp te yàlla tax jàpp te yàlla tax boo koy def defaloo ko Mortal defaloo ko Pape Sarr defaloo ko Oumar caam defaloo ko defaloo ko baabooy defaloo ko Jacob yow sa pikinité moo tax nga koy def. te mbir mi comme ni ñu koy waxee fi ñuy jaamoo yàlla dafa bari te bi ci suñu borom di nangu yàllaa ko xam kenn xamu ko. parce que xale bi ngay jox billet ni mu ciy amee mbégte rek suñu borom moo xam dala ciy bindal wii wala non te yaakaar nañ ku def lu baax wii lañ la war a bindal. comme ni ñu koy waxee saa su di wax ba naa Pikine nañ takku nekk benn gunge su ñuy mbër Jacob nag xam na lu koy xaar comme ni ñu koy waxee luñ naan affaire bi moom. amul secret quoi liggéey la seul le travail te comme ni ñu koy waxee saa su ne yàlla na ñu leen yàlla may bépp mbër bu dëkk Pikine ci jour boobu yàlla na leen yàlla may ndam merci beaucoup